asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, sant yàlla sant yonent bi du nuyu sëñ Muntaxa Mbàkke euh, du nuyu ñëpp tur bi sëriñ Abdou Lahad Seck lañ koy wax euh, dëkk Touba di doomu dëkk bi yaroo fi màgg fi nekk si kuréel bi ñuy wax Sénégal deux mille trente cinq avec ministre Mame Mbaye Niang li tax ma bokk si euh, biñ ko taxawalee biñ ko taxawalee dañoo ñëw seet si ma ma xool mu doon nit koo xam ne ku ku ma war a mën a àndal la si ay jikko mu doon nit koo xam ne nit ku nit ku yiw la euh, muy may doomu Ngor Almadi itam dëkk fa yàlla def tim euh, ma soxla woon meeri Ngor Euh, biñ demee ba si biir tamit yàlla def mu ñëw ñu waxtaan ñu jël koo xam ne ku tudd antu mu représenté wu ñu Nouveau Ngor si Sénégal 2035 te gis naa ne tim ànd bi ñu ànd xam naa ne lim soxla war na ko mën a am si biir Dakar loolu moo waral suñu ànd ma moom. waaw mun na yomb parce que biñ koy commencé yàlla def na président de la République. woo na ko ba mu ñëw mu tàllal ko ay loxool loxoom mu ñaanal ko ñaan googu nag jàpp naa ne nangu na parce que doo xoolee Dakar euh, Diouf saar moo fa nekk ak euh, ñi fa nekk man jàpp naa ne doon nañ ay nit ñoo xam ne waruñoo mën a yor ndakaar parce que nit ki da ngay am ambition si li ngay def ba pare doon loo xam ne loo gëm la walla loo bëgg euh, xam naa ne daal jàpp nañ ne. ville bi ñu ville de nañ ko jël incha allah Sénégal 2035. Mame Mbaye bi mu jógee du ko def dafa dem waxtaan ak président ba président ñaanal ko. kon amul lenn loo xam ne je pense que parce que souvent dañuy dégg ne moom dafa fekku euh, créer mouvement boppam loolu do waaw non loolu amul loolu nit ñi dañuy wax rek parce que lu mu waxtaan ak président ba président yëkk tàllal mu tàllal loxo président président ñaanal ko kon li mu ak président waaw ah, réeroo sa président benn yoon. parce que Barthélémy moom du ma wax ay waxam quoi parce que ki taxoon na man euh, ku bëgg a xam da ngay dem si hôpital nga seeti kooku moom je pense que yaakaar naa mënu ma wax waxi Barthélémy quoi parce que je pense que yaakaar naa moom na dem wuy ji mercredi ba pare jugee si mercredi ba pare ñu soog di wax waxi Barthélémy deuxième bi Diouf Sarr nit balaa ngay wax dañuy xool li nga def su commune ba pare. te Diouf saar mënul présenter benn loo xam ne benn bilan boo xam ne mën na ko présenter si commune bi nga xam ne moom la nekk muy muy muy Yoff. Bougane ku mënta gérer ku mënta gérer sa boîte nan ngay gérer ville de Dakar say employé sax fayoo leen nit ki ku mënta gérer sa boîte mënoo gérer dara Bougane calculé waa Bougane Bougane sax il devait pas xam nga Sénégal moo yomb rek parce que ba ku jug ne da nga soxla réew mi man je pense que Bougane warul doon nit koo xam ne. dañ ko war a mun a bàyyi sax muy présidente ville de Dakar bay wax na réew mi loo soxla quoi. non parce que euh, dafa loo xam ne daal jërul doo koy doo koy wax sax day mel ni nit ki da nga koo ko bañ wala dara. man franchement sénégalais yi war nañ di mun di xoolaat doomu aadama yi wax te bëggoon sëñ Mbacke Soxna Lo moo ko booloon ak président moom loolu wax tout le temps kon je pense que du demee ba. président yàlla dimbale ko mu yor réew mi dafa waroon ànd ak moom si àndu yar ak teggin man Bougane je pense que li muy def nii day tardel boppam rek quoi. ville de Dakar ni ñu ko yoree baaxul depuis Khalifa Sall man j'ai rien contre pour Khalifa wante ville de Dakar ni ñu ko yoree baaxul parce que boo xoolee Dakar gi yëpp gis na Dakar ni mu mel parce que à l'époque dañuy wax ne Dakar 2000 comme comme Paris loolu la ñu wax on est 2000 lan 2021 bientôt 2022. Dakar lan moo fa changé bi président Macky Sall ñëwee sax la lañ gis changement yu bëri ak euh, li mu fa li mu fa li mu def waaye am na fa bilan même je pense que même troisième mandat bi ñuy wax nii même population bi du njamee ba si kanam ñu xool je pense que lii leen daloon si Ablaye Wade mun lañ bañ dal si Macky Sall parce que keneen ki ñëw doo xam lan lay indi te non troisième mandat mën na ko ne troisième mandat mën na am troisième mandat président si waay si li mu liggéey li nga xam ne firnde na ko si bilan am ak si lépp war na mën a war na mën a def troisième mandat nguur gi tànnul kenn tànnul nguur gi yoonam nekkul si problème mu liste parce que souvent état moo demee noonu parce que lu jug rek dañuy wax ne état la président Macky Sall la président Macky Sall yoonam nekkul si législatif yi élection yi ñu jëm. Euh, Kaolack amul guerre parce que Kaolack candidat bu crédible amul fa. parce que Rahma jàngul sëriñ euh, commerçant la man je pense que yaakaar naa mu delluwaat si euh, business am moo gën parce que tamit nit da ngay xëccoo loo xam ne njariñ mu ngi si Kaolack franchement gisuma benn candidat boo xam ne bu crédible boo xam ne mu ngi Kaolack parce que Kaolack doo xoolee depuis Ablaye Diack dafa doon dëkk boo xam ne lu mel ni Casamance lew na doo xoolee mooy zone résidence yi nga xam ne moom la ñoom tuddee Almadies wante tey Kaolack mooy ville raison bi nga xam ne moo gën a salté si si Sénégal kon nag je pense je pense pas que ne euh, ñooñu ñooñu nga ma tuddal kenn war na si mën a yor ville de ville de Kaolack. Kaolack euh, xanaa man sama bopp <laughs> waaw bëgg naa Kaolack waay parce que euh, fi ñu yem loo muy Sénégal deux mille trente cinq mooy Dakar le fur et à mesure je pense que. di si at yi di ñëw dinaa taxaw pour jël maire